nanu bamtu nettali bi weesu benn lu tax yusufa dem misra yàlla moo ko tëraloon ngir musal waa israyil jaarale ko ci yusufa ñaar lu tax yàlla bëgg jële waa Israël ci njaam bi ñu nekkee ci Misra ndaxte yàlla gis na seen metit te dégg na seeni jooy yàlla bëgg na leen te façon na yéene won leen cofeelam ak yërmandeem te yàlla digoon na Ibrahima ne dina am askan wu yaa te musalkat bi dina bokk ci askan woowu ñett lan la yàlla sant Musa mu def ko yàlla sant na Musa mu génne waa israel yi misra ñeent lu tax yàlla reyul taawu waa israel ya ndaxte topp nañu li yàlla wax kër gu nekk rey na am mala mu amul benn sikk te nekk taaw ci ndeyam wis nañu deret yi ci wetu buntu kër yépp ak ci kaw ba malakam dee mi gisee deret ji dafa romb taawu kër googu mala yooyu ñoo wuutu taaw yi bi waa Israël di jóge misra xeet wu yaa lañu woon juróom naka la yàlla musalee waa Israël ci Firawna dafa xar géej gi waa Israël jàll